sama soppe la waaye man sama bopp laa fi teewal bismillahi rahmaani alhamdulilah wasalaatu maa ngi nuyu kilifa yu baax yi fi teew yëpp ku ne ci turam ak santam di leen ziyaara di yeesal suñu kóllëre ak suñu cofeel suñ taalibe ci Mawlana Cheikh Ibrahim ci seen ron di nuyu di ziyaara Cheikh Ibrahim Mouhamadul Mamoun ak mboolem ay rakkam yu góor ak jigéen di nuyu di ziyaara Sayda Fatima Hassan Dem suñu yaay ak mbooleem suñu yaay yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ron Cheikh Mouhamadul Mamoun di sant bu baax a baax a baax ci tawfiix bi ñu yàlla defal ñu fekkee jataay bii nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mamoun moo ko moom ñun nag jataay Cheikh Mouhamadul Mamoun ak bësëm ñooy yenu basan yi ñooy lal sijaada yi nit ñi di toog ñoo yenu chaise yi ñooy defar bâche yi loolu moo ci suñ cër ay taalibeem leen ay jaam leen sax ci ronam kon loolu bu ñu fekkoon ak fu ñu mën a fekk daneen jéem raam daw ñëw fekkee ko xencu si xet googu nga xam ne lépp luy mbaax wala muy sutura wala muy yaakaar nit di ko gis di ko xenc ci ñun ci loxoom la ko yàlla jaarale ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko fàttaliku moom Cheikh Mamoun moomu di sant yàlla bu baax kiñ tudd léegi ne dañ ko jagleel ci bés bi muy suñu mbokk suñu xarit Mouhamed njaay Rahma xam naa nit ñi gis neen suñu diggante muy diggante bu yàgg muy nit ku baax suñu mbokk mu baax di doomi Cheikh Mouhamadul Mamoun digganteem ak Cheikh Mamoun man am na loo xam ne xam naa ko ci lu baree baree baree bari keroog bi muy sosu sax ci sama kanam la alhamdulilah rabbil alamin fekkee naa ko ci jidda ci defe naa 2001 ci jataay boo xam ne karaama sax feeñ na ci gannaaw gi te moom Mouhamed Ndiaye fàttewut loolu dëgg-dëgg ku soppoon Cheikh Mouhamadul Mamoun la ku ko bëggoon la ku ko liggéeyal la ku sëriñ Maamun gërëm la euh, démb la jokkoo ak man ne ma bési Cheikh Maamun bi day dama danaa ci dem ma ne ko incha allah man maa ngi dakaar waaye dana ma fekk Kaolack suba mu ne mu ñëwee danaa la woo ñi ànd dem ci ma ne ko incha allah tey mu woo ma ne ma dafa am ngànt parce que dafa am doomi baayam bu génn àddina euh, ca Jolof te mënu cee ñàkk a dem loolu moo tax mais jokkoo na ak Cheikh Ibrahim Mamoun ak Mouhamadul Muntasir ak ñenn ci njaboot gi wax leen ngàntam waaye xolam ak xelam yépp xam naa ne mi ngi fii ndax digganteem ak Cheikh Mamoun loolu moom diggante la boo xam ne diggante bu xóot la woon diggante la boo xam ne diggante taalibe la ak sëriñam man ma xam ci lu baree baree baree baree bari maa ngi ñaan jataay bii ak kilifa yi fi nekk ñi ñaanal ko yàlla moom Mouhamed njaay yàlla defal ko jàmm guddal fanam euh, yokk ay man manam ndax nit la koo xam ne wax dëgg yàlla pay bii ñun dey daneen ak xam ñu baree baree baree bari daneen ñi àndandoor ak ay nitit waaye li ñuy téye ci nit nag moom mooy kër gi ak baay kuñ gis ak lu la yàlla mën a may ak loo mën a doon ñu gis na da ngaa xaw a soofantal wala nga xawa a cof lu jëm fii teg neen la ak koo mën a doon waaye gis neen ci moom itte ak mbëggeel ak cofeel jëm ci kër gi ak lépp loo xam ne dafa aju ci kër gi loolu bokk na ci li tax ñu gën ko téye maa ngi jéggalu ci kàddu yi di dellu beneen yoon di sant di gërëm wa ma dalika ala allahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh